que président aussi mu mu delloo ko drapeau bi parce que depuis président ñoo ba léegi ñu ngi liggéey en partenariat te dara mosul ñaaw ñu ngi am ay avancées le président mosul n'a jamais accepté un drapeau bu ñëwee tey ba accepté ko déjà pour INACOI moo tax secteur privé mais le président Macky aussi daf ci am cër. donc c' est important mu taxaw foofu wax partenariat bi nga ko ak réussite yi nga xamante ni am na ko diggante INACOI état bi mu taxaw ci daal mais bon comme ni nga ko waxee aussi baax na. ko ko waxee noonu dina mu war a bëre ak daa bu Texas laay borom cees maa ngi lay bëggee champion. waaw Babacar fay naa la. ma am nga jàmm. waa sant yàlla bu wér kay. ana waa Thiès ak naka Thiès. waaw waa Thiès ñu ngi fa. maa ngi nuyu ñëpp ginnaaw ba ma sant yàlla julli ci yonante bi maa ngi sant samay ñaari waajur di sant sama sëriñ sa ab Sakoor mu sëñ Cheikh Fall Ngunda. woy di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall tamit mu yàgg fi lool ak sëñ Muntaxa di ñaanal xalifa diina yëpp ñu yàgg fi lool te ànd ak wér woy Lamine maa ngi lay bëggee jël daa bu Texas nga war a bëri ak moom xam nga daa waaw daa xam naa ko nii rek xamul làmb de comme mbëri ni ñuy xamante rek waaw ko muy bëre nii rek waaw après ma xam ko mais xawma ci moom leneen lu lool nag est-ce que jël mbër mu mel ni daa ak laay goote am na ñoo xam ne dañu risque la. non làmb moom lépp risque la. làmb moom lépp risque la. yaawu jaal sax booy bëreek moom risque la. ndax ku sumeeku ay centaine de personnes wër la. mooy loolu noonu nga sumeeku ba mu set ngemb di bëre loolu risque moom weesu ko kon làmb lépp risque la quoi oui. xëy na fi ñuy waxee mooy dañ doon xalaat nga am beneen adversaire bu ëpp cote daa xëy na loolu la amateur yi wax amateur nag ñoo ko wax. waaw man. parce que nee daan mbay xam nga ñëw Dakar daan fi mbay guy gi daan fi tonnerre numéro 2 loolu moo tax gars yi xalaatoon ne waroon nga am beneen adversaire bu ëpp cote daa loolu la amateur yi bërek bërek Pape Ndoye ca Thiès bëri bu méttee méttee méttee bàyyi loxo dama ci. waa dëgg la loolu lépp boo ko gisee mooy problème mu adversaire rek ku nanguwul la ñëw Thiès quoi waaw ndax waa inaakuwaay seen combat Thiès lañ ko bëgg a taxawale seetati woon nañ ay mbër mais dañoo bañ quoi nangu ñoo ñëw suñu waxtaan ak ñoom bañ nangu suñ leen waxee cees la duñ nangoo ñëw quoi daa moom moo nangoo ñëw cees loolu moo tax ñu obligé jël ko taw amateur yi Thiès yi namm nañ ma te def naa année blanche tamit awuma combat waaw léegi dama koy jël rek pour lool loolu moo tax ma jël ko quoi. mbër de moom bëree ko jig sax nag moom loolu tax nga jël ko mais daa ñëpp bañ daa nangu loolu tiitalu no non non loolu tiitalu ma de damay jàpp ni daa tamit moom bëreeg man avantage am la quoi oui ak lu mu ci mënti jëlee avantage am la waaw ndax bëri naag laay goote maa ko raw quoi. maako ko raw da maako ko supérieur kon bëreeg moom kon kon mu bëreeg man avantage la ci moom quoi loolu moo tax mu jël ma. non man kay daanu. <laughs> bàyyi faal. non daa ngay bàyyi ko ci biir rek. Ah. bala jour si quoi. wala bàyyi sow seen mbër mi daa ragal nee na du xeex ak daan. non mooy loolu du ma ragal sax. mais nit ki li nga ko jiitoo da ko koy won waaw noonu la demee. maanaam lan moo ko mën a xaar Thiès. non Thiès moom bu ñëwee moom ci jàmm lay nekk. Ah, da ngeen di ruube mbër ya fay ñëw de. no yàlla xam na ni maa ngi lancé supporters yi. looloo tax mbër bañ a dem Lamine. di lancé appel ñëpp. di leen wax ni sport la rek ñun dañuy ñëw dakaar di bëri si gars yi dañu dalal ñuy bëri di daan di ñibbi kon tey jii moom tamit dama koy wax bu ñëwee na dal jàmm te xam ni dara du fa xew. baldu fa tàkk sagar du fa xeeñ. xeer du jóg. xeer du jóg dara xeer de mais war bi suuflee moom lu raw ay xeer dina jug ci biir géew bi ah. waaw. a ah, Pape Ndoye de dégg naa moom fa ñëwee moom boobu keroog balaa muy génn Thiès moom dégg naa police ko mujj rawale. non du woon maag Pape Ndoye sax moo doog Lac Rose la woon rek xam nga rek seen règlement de compte bu yàgg boobu. noonu la demee ñoom ñaar ñoo fa doon indi ay kii mais maag moom mooy loolu noonu woon benn problème. ana Modou moomu. Modou mu ngi fi ko teree mu ngi ci entraînement yi de comme li ma daloon rek moo ko dal. oui combat bii moom moo ko waroon a bëre quoi. mais amuñu woon ku ñëw Thiès ay adversaire am nangu ñoo ñëw xanaa Thiès daam lu fa ne ba gaa yi ragal faa dugg non dara nekku fa li nekk dakaar rek moo nekk Thiès ndax ñun dañuy juge Thiès di ñëw Dakar di leen fekk si di bëre ñoom kon ñoom tamit war nañ mën di ñëw di bëre mais lamb du Dakar kese waaw lamb du Dakar kese yàgg daa combat mën naa gaaw combat bi mën naa def lépp mhm. booy Pikine la de waaw booy Pikine la sampion la mais combat bi daal loo ci xalaat moom mën na ci am moom maanaam kon dóor mu daanu mën na ci am lépp lépp laa indaale daal xawma nag moom lu mu indi mais man lépp laa indaale waaw lu mu laaj rek bu arbitre soufflé ma def ko. Hmm. kon daal laay man maanaam day rassuré waa Thiès ne leen bis boobu bésam la. bis bi sama bis la sax. sama bis la kay. damaa gëj a bëre Thiès te bi ma fay bëre defet laa fa juge ci defet laa juge man ak Pape Ndoye toog lu yàgg ñu nam ma ma année blanche dem Dakar def fa ñaari sortie ñaari victoire ñu nam ma kon les jours yi damay ñaan yàlla yàlla may ma ndam rek. na solo kontaan ci yow. waaw jaajëf Babacar. di bëgg lu bari. ak dabu Texas wéydu Texas bu Pikine ñaareelu combat bi xale bi nga xam ni mooy Elton bu écurie Thiès mbooloo muy bëri ak Sa Thiès bu écurie Landing Diamé ñetteelu combat bi dictionnaire bu écurie mbooloo muy bëri ak Samba Ndiol bu écurie R100 mbooloo ñeenteelu combat bi Modou Anta numéro 2 bu écurie Moussante muy bëri ak Ziggy Marley bu écurie Fass Boy juróomeelu combat bi Bouba Diakhar bu écurie Samba Diaw mooy bëre ak junior bu écurie Morolan juróom benneelu combat bi Boy Ndoye bu écurie Thiès mbooloo mooy daje ak caatu Xaydaka bu écurie Dagga juróom-ñaareelu combat bi Bissane bu écurie Tivaouane mooy daje ak top 5 bu écurie Landing Diamé juróom-ñetteelu combat bi caatu Ama bu écurie Kër Mbabba mooy daje ak Lay Dragon bu écurie Cité Lamy juróom-ñeenteelu combat bi caatu jobaas buy turi ñoota jobaas mooy daje ak sesewo buy turi jogo fukkeelu combat bi nag muy combat bu mag bi volcan bu njaxate bu écurie yi bëgg sa waajur mooy daje ak jinjeer bu écurie yi doomu Thiès loolu mooy programme bi nga xam ni mooy am ci bés bi nga xam ni UNOCA lañ ko tuddee muy le premier mars ci stade Maniang Soumaré ca Thiès ñu leen di fàttali nag xale yu commerçant yu cees yi ñoo ko tëgg daje bi ñu daje fii nag du face à face remise de drapeau ndax face à face bala ñu ko def da nga di dem ba CNG def li war seen diggante ak CNG ba ñu jox leen diggal ni leen mën ngeen def face à face tey UNACOIS ci loolu la topp moo tax tey jii remise drapeau bi nga xam ne dañ ko tudd UNACOIS moom la ñuy def dafa naan Xaadim Samb loolu moo waral bés bi waaw jërëjëf euh, Alaaji Papa Dieng Euh, wax ji yépp wax nga ko ndax xam ngeen ne UNACOIS kuréel la boo xam ne stabilité koomum Sénégal ci fanweeri at yii ci seen loxo la ko yàlla suñu borom teg ndax le président Macky Sall gardien de la constitution père de la nation keroog mu toogee ñetti weer la toog wàññi suukar wàññi diwlin wàññi ceeb wàññi meew wàññi gaz wàññi pétrole ma ne ko monsieur le président fan nga sukkandiku ba def lii mu ni ma ñetti yëf ci laa ko teg bu njëkk bi mooy damaa jubóog waa Jàppoo mi nga xam ni chef d'état bu ma sa toog réeroog ñoom ma ànd ak ñoom signé ñoom pacte bala maa laaj réew mi ànd ak ñoom ci biir laaj réew ma ñëw inaakuwaa yéeg toog ca seesu Idi Thiam ba ca biir inaakuwaa dem campagne gañe réew mi dellu si ne ko bala maa prêter serment dinaa dellu si waat looloo tax ma mën a wàññi loolu looluy dox tey ba mën naa wax ne inaakuwaa ci biir réew mi ak bitim réew mi képp koo xam ni yaa ngi yaxantu inaakuwaa taxaw na la li commencé ci ki wàcc cinquante conteneur wala bato soixante dix mille tonnes ba yegg ci ki taxaw di jaay jaaf ak ki yor layoom di jaay fii guro ñëpp la inaakuwaa yemale loolu nag kii ngeen tudde drapeau bi juumu leen kii ngeen tudde drapeau bi ku ñu mas a dénk inaakuwaa jàppoo buur juumloo na la ba mu des kii ku ñu mas a dénk UNACOIS bu la biir di bu la buur diggee ñaari hectare mbaa ñetti hectare mbaa 4 4 nga d'accord waaye kii lu la buur dig na ko mu ne ko soxla ma ko sama deret ma gënal lool ndax dafa jiitu te baat boobu yàgg naa ko wax Alaaji Papa Dieng ànd nañu fanweeri at ak juróom mës na wax lu nekkul ci moom du daw du jëw du lekk alali nit du làqatu du jaay UNACOIS ndax leneen au contraire UNACOIS ñoo ameel idi caam biñ ko joxee Unacois léegi jëndul oto bu bees jëndul kër gu bees Unacois moo lekk doole idi caam ak alalam ak jotam ak joti jabootam ak joti xaritam kon yéen waa Thiès juumu leen ci lii ngeen def Thiès nag bànqaas la bu bokk ci Unacois boo xam ni war nañ leen defal mention spéciale ndax ay jàmbaar ngeen neex seen baat bu njëkk ak seen baat bu mujj ba tey jii mooyam la commencé ci président régional ba nekk UNACOIS ba ñëw ci zone yi nga xam ni ñoo jël bés bii tudde ko Idi Thiam kii kenn mësu koo tudde làmb mu nungu ci àddina ah, président ina quoi ñu dégg ko ci réew mi lu nit gàtt gàtt nopp am na dégg-dégg boo am ci moom nit nag bu dee dafa sol dàllam réew mi mu dëkk ñor ko muy modèle di référence képp kuy ndaw mbaa ngay jeune am sens bokk ak moom tàkkusaan ñu tuddee ko bés damay ñaan ci kàttanu yàlla ñu ne ci salle bi ñu tàccul ni ko ndax ñu nu jiitu wax na ni ko du jànje ko alaaji Papa alaaji Xaadim Sàmm ñetti ñii damay wax ne monument lañ ci làmb mënoo def nenn jaar fenn ci làmb te amuñ ci cër buñ ko doon séddoo seeni tool dana yaatu lool mën naa ne ay hectare lañ ci am bu ñu ñëwee fekk leen fii ñu am bés bu toll nii am na événement yu mag a mag ñu koy tuddee les VIP te mënoo dajale ñetti ñi ci sànn kon président Idi ñii ba bokkee ak ñoom ran ñu ñëw fekk leen fii damay wax ne waa Thiès song ngeen président Idi mais song ngeen ko mat li mu doon ñu koy defee fii ci place de l'Obélisque di la wax ni fii ñu la fekk am nañu fierté ndax ñun li ëpp ci li ñuy def dañuy yëngu ci làmb waaye tey ku teew fii ak kilifa yi wër la nekk ci ginnaaw dañuy wax ne commerce mooy doxal am réew ñii toog fii ñoo yor Sénégal ñooy doxal réew mi ñaari xale yi koy bëre am ngeen tàkkusaan yoo xam ne mbër fayeeku na 100 millions te amu ko kon ngelawaay la jour ji ñuy ñaan le premier mars na def ni borom bés bi mooy jom ak ngor ba bu fa match nil am kenn du perte ci yéen ñaar ki daan dana am ndam ki daanu dana am ndam ndax may bëri président Idi Thiam drapeau am yaakaar naa ndam lu rëy li ci Sénégal ñuy ñaan le jour ji première mars date historique la date la ci làmb waaye mu doon date bu ñu dootul fàtte nga xam ne loo xam ne dañ naan l'histoire retiendra ku ñu jox trophée Balla Gaye bañ jox la Mor Fadam jox la Tyson ak li fi xaadim lim lépp ku ci ne ko yéen ngeen di ay xale amaana nañu bi ñu bëri judduwu leen ngeen am bis bu toll noonu ku nekk sa wërsëg bis bi yàlla na leen jig alaaji Papa Dieng ñu ngi lay gërëm du jànjee ko sant nañu la waaye sëñ xaadim sàmm mi wax na ko léegi dafa am bis bu rëy mal ko muy le 9 mars delloo ko son excellence président de la république Macky Sall muy le 9 février jël soxna ma Mariam Faye Sall def ko ci def ko gala de lutte def ci six grands combats lu kenn defagul ci saison bi ren mu ni fu ma ko jëmee mu ni soxla ma fenn arène national laa jëm xaadim tey damay wax ni mérité na ëllëg stade bu ñu ko tuddee wala monument lii mu wax ci président Idi ngoro la nit mën na laa defal teraanga séq yow lu ne ngeen ànd tuddante doom bés jot mu am bés tax nga wax ba jeex tàkk as gor nag boo ko joxee la nga am lu mu lay jox du am mën naa ne limite ci moom nan koy comprendre la muy téye micro ba micro ba la ñu séq la moo tax muy defee noonu waaye di gërëm ñëpp tuuti nañ ci wax lu bari ci moom waaye nag dafa am ñu jóge cees bi ñuy sumb lii dañu maa boole ma ci waaye bis bi kuñ ci boolewul da nga xelu ñëw mbaa nga daw ñëw bu ma amee sens bokk ci bis bi sant la Zal Mbaye ñu ngi lay gërëm bu baax di la wax ni xale bi ngay goote bi mu bëree mujjee bëri Thiès stade dafa fees dell Sidi Jaxate ku tëggoon tëj ko tey muy bëre daabu Texas bi muy bëree ci ginnaaw jour booba ñoom mot la doon bëri journée boobu xale bi bëri ci mu ñaari xale yoo xam ne am nañu jom am nañu fayda tànn nañ la affiche bu baax waa Thiès def nañ ci ay espoir yu am solo le jour ji képp ko xam ne teel ngaa dagg sa billet ñëw ci stade bi da nga xam ni idée moom bis boobu waaye da nga xam ne waa Thiès bëgg nañ la teg nañ la sa place te man miy wax ak yow maa ngi dakaar Thiès am naa fa doom samay mbokk nga fa samay am jàmm nga fa waaye kii way léegi sëñ Xaadim wax na ko ku ne bëgg na ko ci tàkkusaan bi mu woyee si yëpp yëngu président bis bi yàlla nay sa njiglaay nga yàgg ci Sénégal yàgg jiite yàgg diriger te liñ lay waxal suñu xol la ne waaye nag ñu wax ne dañu daan dégg ci lu bari jaxasoo bari amut waaye ku la soppoon benn dana la sopp fukk ndax ñun sopp nañ la boole na ci suñu bopp sant nañu gërëm nañu di leen ñaanal yàlla di jéggulu bu baax wasalaam yàlla na yàlla defal jàmm suñu xol sax mbooloo bi <laughs> kon maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di gërëm suñu mbokk géwél yi ndaxte xaalim daan nga wax ne képp ku bañ ku la way xamal ne ku bon nga képp ku bañ ku la gërëm xamal ne ku bon nga ku fi géwél bàyyi rek xamal ne koo ko yow ñëpp ba maa ngi nuyu président Idi Thiam ak membre UNACOIS yëpp Idi Thiam nag. bu may wax si moom sax mun naa ne sama xol day ëpp waaye ñu ngi gërëm xale yi nga xam ne ay commerçant la bokk si INACO am président boo xam ne jël nañu ay jikkoom mooy li jikkoom yi mooy ku am fulla la ku am fayda la benn kàddu la am bu ne waaw waaw la bu ne déet déet yéen it ngeen ay amateuru làmb kenn mënul ne commerçant du amateuru làmb Idi Thiam mi amateuru làmb la tey képp kuy membre INAK waa mun nañ ne amateuru làmb la parce que commerçant bu dimanche jotee bu liggéeyee ba wàcc làmb lay seetaan war a course fas ñooñu rek lay seetaan commerçant dëgg du seetaan football kon tey bés bi boo leen ko jële jox ko président INAK waa muy Idi Thiam Xaadim sàmm mii li mu fi wax léegi ñoom ñaar la woon di ànd nga dégg tey Alaaji Papa Dieng li mu wax si Idi Thiam nga dégg yéen ñi ànd ak moom li ngeen wax si Idi Thiam mooy wane Idi Thiam benn nit la du ñaar te léppam inaakuwa li ñu neex si moom mooy inaakuwa da ko jaral lu ne njiit nag léegi njiit dañoo jafe njiit boo gis boppam lay wax man la man la man la ku naan man la man la bu yow ñu bala man la ña nga àndal ñoo naan la yow ah. bari na ñoo xam ne bu ñu seetee président mu dig leen poste ñu jël ko moom mii sax ñu ne kaay jël lii mu ne bëgguma soxloo ma dara ni naa ko wàlla soxla ku mel noonu nag dafa jafe si réew mi association yi bari nañ fi may duñu dara fii benn association fi ne muy Unacois li tax Unacois ne mooy suukar bu ñu ko waree défendre dañ ko défendre bu ñu waree défendre xorom défendre ko ñooñu ñoo jar a àndal kuy àndal demal adhéré di jàppoo képp kuy commerçant demal ànd ak jàppoo xam ne am ngeen président mu ngi tudd Idi Thiam man nag du jànje ko laa moom laa am suba parce que yëg na doomu aadama fonk na doomu aadama bëgg na li nga xam ne ni mooy Sénégal yi gëm na réewam nit da ngay gëm sa réew tey àdduna bi booy seen rawante dafa am ñoo xam ne gëmuñu seen réew mun nañ jaay seen réew yeneen réew moom fekk ko si boo neexoon tey mu jël alal du dul jeex jaay inaa ko waa may du ko def ak gor ñi mu àndal le première mars drapeau Gor su Gorée si di ñaari ndaanaan yoo xam ne kenn ku ci nekk langal naa la nga wane jom wane ngor wane fayda ak gi nga xamante si ni moom lañ sequ ci làmb muy daa bu Texas mii nga xamante si nii ku dem Pikine bokk ko laajte doo réer waaye dañ koo jël nag jox ko rakk moo di Anta Gueye Gueye la Tigre de Thiès muy laay goote nga xamante si nii kun ko box tàkkusaan gu ne say mbokk du nelaw ñoom ñaar ñëpp di boroomi jom te kenn ku ci nekk buñ la tëggalee làmb lu làmb jë rëy rëy ñu nu xajul fii gise fermé am làmb jooju ki ñu ko tuddee ak ñu koy bëre yaakaar naa ne méngoo na yeyoo na kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax laay goote bu ko defee nga ñëw taxaw nii daa bu Texas ñëw taxaw nii ñëpp xam ne yéen ñaar ñii yéen a war a bëre le premier mars journée le président édition waaw waaw daal ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw ginnaaw ma ñu sant yàlla julli si yonent bi sant sunuy ñaanu waajur bu baax a baax di nuyu ñu fi teew yëpp rawatina sunu papa yi tey jii tey bis bi macha ko ci fula bëre ko ci fayda rek a ñu war waaw di nuyu nag waa nañ koy waxati Inakoa ah. waaw Inakoa ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax tey li ñu def lii. waaw Inakoa jàppoo bi. xam nga ne tey lii dafa rafet sunu papa Idi ñoo ngi koy ñaanal li mu bëgg ci Ina quoi yàlla na ko yàlla defal incha allah te bëgg nañ ci nag ay tisatam bëgg ci ay kaaram ci kàttanu yàlla ñu. ñu warale ko fëpp xam na ni lii kuy jàppale ndaw yi xam nga kooku kenn amatul sa safay kon ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm en tant que sama adversaire bi maa ngi koy nuy muy Laye Gothé. ñu ngi ñëw ci loolu Laye Gothé ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw ban sant yàlla julli ci yonante bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur waaye di sant suñu sëriñ sëñ ab sàkkoor mu sëñ Cheikh Fall Ngunda di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal sëñ Muntaxa di ñaanal xalifa diina yëpp waaye di nuyu ñu fekk ci salle bi yëpp ku ci mel père Xaadim Samb père Alaaji Papa Dieng ak per du jànce ko di nuyu Idi Thiam ñu ngi koy nuyu bu baax di ko wax ni lii nii fierté la pour ñun ñu bëre ko man ak daa ndax lii yombul comme ni ko paa yi rek tudde nañ ko drapeau bu nekk mu bañ ko kon tey jii bu nangoo lii kon ñun suñu chance la tey dañoo war a jom wane dañoo war a wane jom ak fulla ak fayda man ak daa yëpp bëre ko ci jàmm daal mu jeex ci jàmm waaw xam nga rek mooy loolu quoi làmb la que le maire gagne maa ngi ñaan yàlla may ma ndam quoi ci kaw daa waaw loolu ma wax dëgg la li ma wax dëgg la waa ku xam làmb xam ni maa raw daa bokkuñu man ak moom mais tamit lim nangoo ñëw Thiès moo tax ma jël ko dama ko ciy san di ko gërëm te les jours yi raw bi ma la wax ni maa ko raw dama koy woon. daa kii li mu wax fan la ko teg. ah fi ko teg dama ma jaaxal moom raw daa <laughs> kooku daa xamul daa laa yaakaar non dafa xamul daa bu Texas daf ma xamul loolu ah li may boo xam nga na dëggal boppam rek bu suur baa incha allah ñu bëri ko ci ful ak ci fayda. xam nga war a jóge Pikine ñu langal la Thiès nga xam ne xale bii dafa am code de popularité bu mag doo ko bëree ak xalaat yu métti. non wax dëgg yàlla loolu mis naa ko man dong daan ànd laa la wax di jël sama ngéem di dem ba ci àll ba man dong. yàlla di ma sutura léeg-léeg may jël nag léeg-léeg ma wàññeeku waat kon loolu pression mënu ci am parce que man kees laa dëkk sax man maa ngi dëkk laa waa Sange maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm xam nga waaw xam naa ne ñooñu dañoo opté nekk mbër mbër moom boo nee mbër nga rek moom fu ñu la woo ci liggéey war ngaa wuy ji waaw gëm-gëm la rek nit moom fit la ful ak fayda yàlla mi yor ndam nag moom yàlla moo ko yàlla may bu soobee yàlla incha waaw <laughs> non loolu moom ay wax la rek waaye daa moom ku ko xam ku ne ci duma ci làmb ah loolu yombul nag wax dëgg yàlla mais laay goote bismillaahi may tàggu yàlla rahmaani may tàggu yonen rahimi may tàggu jabel tàggu naa sama ndey tàggu sama baay tàggu ne bu tàggooy waajuróom wàcc na jarama kàcci samba ak balmoor ma xuja maram fay ma soxna maram fall maa ngi jooy jàlla nag ma daanoon jóob mu nga war gaalub ñi laan gi jubóoli anta jaw ma nga tere yoo fi géej meng meng yoo géej samba samba ngorub jéen ceket ñaa mbaaw ngeen ñaa nga wakaam ñaa nga ñaa nga caaro géej xolal ma ni gël mbay tension ma commandement officier n'a pas peur droite et gauche moom te bëtëg ba kenn soree wuñu fa yëngu ma timbaxal la ko fa ma ni gël mbay ndënd mi mi wurus xolal galen bi di xaalis gàddukaay gi soy bu nekkee ak moroom yu géwalam boo waneenul boppam rek kooku duru ko ah waaw loolu dañ ko ciy félicité bu baax waaw amaana nag ñun doomu séeréer morala lañu yow noo ko fas yéenee faje non ci kàttanu yàlla dañ koy bari ci fair-play incha allah bi lay ñibbi Pikine ci kàttanu yàlla di sant nag waa ginnaaw raay bu baax di leen ci woo bu baax ku ci mel ne suñu wal wal waali Njaay ñu xamee ko wal jooja Njaay waaw mu ñuy jàppale bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di ci woo waa ginnaaw raay waa post Thiaroye yi ñëpp sama doomu nday bee bu jógee ci victoire xam naa ne incha allah dina ma ko wàll muy Ibou Socé Malé ci kàttu ne yàlla moom léppay baax. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama manager Zal Mbaye maa ngi koy sant bu baax en temps sama président écrit woy di nuyu daanak di ko sant bu wér wér di ko wax ne di lancer supporter yi appel di leen wax ni man ak moom benn lañ waa ñoo far ay mbër la ñun ñëpp ni mu wàllisee ñëw ñun dañuy wàllisee di ñëw noonu di boo ñëwee la jour yi defal lu la neex les jours bu ñu duggee ci géew bi ñu bëree ko ci fair play mu jeex di sant Idi Thiam tamit bu baax a baax di ko wax ne man ak daa yëpp ñu ngi sàkku ci yow ndimbal nga jàppale ñu ndax combat bi mu taxawee ba léegi dafa yàgg dafa yàgg yàgg na trop dem nañ ba lu ñu dematee saal sax amuñu ko instant yi nii di la woo nag pour nga jàppale ñu man ak moom yëpp quoi ndax ñu ñaar ñooy. ndax ndax tubaab danaan charité bien ordonnée commence par soi-même. wolof di ko wax naan. bay ca sa weewu tànk bon. UNACOIS ñooy moom drapeau bi. bon waa UNACOIS d'abord ñoom moom drapeau bi. Idi lañ tudd waaye UNACOIS ko moom. Idi la bi tudd waaye UNACOIS moo yor moomeel bi. secteur privé. teg ci secteur mboolem nag ku ñu bokkal secteur privé. ci informel ak. ci informel ak formel. ak formel ndax UNACOIS ci ñaari mbooloo de pare. am na am na am na bàyyi toutes les organisations du secteur privé.

nee na presse nationale bi nga xam ne ñoo fi teew président nee na mu ngi leen di beral ngërëm di leen sant bu baax a baax